Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Diomaye Faye le premier gouvernement vous mettre en place mooy donne réussite projet ou wala mu donne échec projet ce sera le premier signal fort vous lancé lancer aux Sénégalais et au monde entier donc choix Omi, yi rigueur pour amul ben faille na donne ay choix yu tegu ci ay compétences tegu ci ay valeurs tegu ci rigueur tegu ci patriotisme pour amul ben faille son Excellence, on a frôlé de justesse une guerre civile pour redresser ce pays, pour mener ce pays-là à bon port. Donc les hommes, ñu war a pour mener ce pays à bon port là warta tegu ci ay sentiment joxe sentiments. lii ci combat bi def tu lii ci combat bi daj combat bi donc dam ci wara am li. il faut que africains commencent à dépasser loolu il faut que les africains moi am génération yu nangou comprendre que niki dañuy joxe suñu bop dañuy saraxe suñu bop dañuy tayle suñu bop joxe lepp luñu am ak luñu amul pas pour ñun pas pour en retour ñu am ci dara mais pour satisfaire les générations futures lolu buñ ko deful buñ ko comprendre ba légui duñu génne mukk Afrique ci nguuta na la ñëpp mere na la ñëpp mere amul problème mais les hommes qu'il faut à la place qu'il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut bëggatuñu delluwaat ci luñ jóge C'est ci yoo leen ko